نون والقلم وما يسترون gannaaw sant yàlla bu baax a baax gannaaw sant yàlla bu ñu defalee ay tànk ñu mun a yaatal mbindiin alquran ci adduna bi yépp gannaaw sant di santale tamit suñu waajur suñu sëriñ bi nga xam ne yàlla moo ñu boole ak moom ñu doon ay ndongu daaram mooy Ceerno Mouhamed Samata hafidahullah wa raa moo yebal fii ay ndongam Ceerno nag di kontaan ci bés bii lool ndax bés bi daf ko def mu deen yow ma ziinat Ceerno dafa ne bés bii moom iidam la ndax kontaan buñ mooy bis bi nga xam ne mbindin al yaatal quraan ñu jël pare be def ko Thierno Mouhamed Samas Thierno de kontaanoo ci loolu nee na amul seen fay yàlla moo leen fay yàlla yàlla def ma jàngal alquran def ma ne nii gan ñi daal yàlla moo leen fayal ndax ñooñ ngi ci aaya quran di yàlla du noo wax yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqina muy mu ne muy ñi mu ne yaatal alquran mu ne ñii mooy di yalla wax maa kaana li ahli almadinati wa man hawlahum min al arabi an yataxallafu an rasulillah wala yargabu bi anfusihim an nafsi dalika bi annahum la yusibuhum damaun wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'uuna mawdi'an yagiidu lkuffara wala yanaaluuna min aduwin naylan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna allaha la yudii'u ajra almuhsinina ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم liyajziyahumullahu ahsana maa kaanu yaamaluun ceero nee na ni aaya bi ndax bu ñu xool sababu bi nañu xool itibaaru eh, eh, eh, aaya bi bu ñu xool sababu nuzul nañu xool itibaaru nuzul yi mu ne aaya bi yéen la ndax musul am gan ñi nga xam ne ñu ne man dañu ñëw ceerno jàppale leen li ngeen di yaatale mbindin alquran ndax loolu moom mooy pas-pasam ceero dafa ne nga may ko ndongo daara ndongo daara mu koy bindal moo ko gan nga jox ko téeméeri milliards mu ne soxlawu ma dara ci sama adul lu dul taalibe ndax ba léegi nii lu tax ñëwul dafa waroon ñëw mais lu tax ñëwul ndax tey samedi la da mu ngi jàngale mu yebal ay ñii ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji jàngale nañ ko ñëw remplacer ki nga xam ne doomam mu ngi fii Thierno Mouhamadou baaba Baba Souley Baba baaba Thierno Samassa eh, Baba Samassa kooku doomam la dafa ne ñëw dafa kontaan cerno ci mbooloo musul yabal ci doomam ndax tëdd bi cerno bëggul woone dara ci adunam mais comme bis bi bisam la mu yabal doomam na ñëw ziyaara yu bari buy am day yabal taalibe yi nañu dem balaa ñuy gis ne ne yabal na doomam du ko def moom taalibe yi la def taalibe yi la jiital ak doomam yi cerno jiitalul benn doomam mais tey dafa ne dama leen ngeen àll sama doom ki nga xam ne dama sama sama papa laa ko tuddee nañu dal kiram ndax kontante bis biñ ma tuddee nee na baa Mouhamad Sama sana ñëw ma ànd ak ak Cherif ñi nga xam ne ay maamam Cherif lañu ñu dëkk ci loñ mu ne nañuy ñëw ñu gungee leen Cherif mu ngi fi Cherif Taha ba Cherif Mahamoud setu yonent bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mu boole Cherif Abdoul Qadir Ceerno Abdoul Qadir moo jàngal Ndiol Fouta moo jàngal Ceerno Ahmad Tidiane eh, Taal bu bu Tiwaawoon moo jàngal imaamu Sakho bu euh, euh, Grand Dakar cinéma El Mansour ku doon juma El Mansour setam mu ngi fi bu tudd Chérif Abdoul Qadiri te Abdoul Qadiri lii ñëpp xam nañ ko lu mu def ci yaatal mbindi alqur'ana mu ngi ci tamit ci mbooloo bi Thierno Mouhamadul Mansour Ndiaye waneel la dëkk moom tamit mu ngi foofu day jàngale ay taalibe Thierno na ñëw gunge leen bis bi mu boole ci tamit borom xam-xam bu mag bu tudd na Haaruna kii mooy jàngale doomam yi na Haaruna Diallo ko tamit ñi nga xam ne ñu nekk ci këram di jàngale taalibe yi la ci ci délégation yu bokk mu boole ci tamit Cherif Mouhamadul Mukhtar euh, im bu nekk imam féeti yi jàkk yi bu nekk euh, tànkaay si doomu Cerno bay laala moom tamit maamam moo jàngal cer Samata Cerno Cheikh ñëpp xam nañ ko kooku tamit mu ngi ci délégation bi mu boole tamit Cerno Ahmad Tidiane Ndiaye papa mu ngi jàngale wut duru papa bi yaatal na fa tamit mbindiin alquraan cerane na ñëw mu ànd ak ñun mu ngi jugee wut duru ceram moo fa togal cer Mouhamad Sama Sarr keneen tamit mu tudd cero Mahamadou Ndiaye moom tamit waa wut duru la cer na na ñëw bokkal leen ak bés bi ñii ñooy jàngala kër Sama Sarr daf leen tasaare ak seen ndongo seen taalibe Abdourahim man maa ngi jugee bokki jawe Abdourahim Diallo ci ndongo daaram yi la cerno bu lay jox taalibe bu lay jox taalibe dafa naan maa ngi lay jox taalibe bi nga jàngal kon avant tout d'abord jàngal ko nu muy bindee rasmal kitaab wa dabtahu allam naa bi la itam mu ne ndax yeneen ti bi loolu la jàngal ay saxaaba ba pare muy soog lañu moo tax moo tax rasmal kitaab wa dabtahu allam naa bi la itam te daf lay wax ne nu abu su adu abul aswadu duali lu mu masi alquran ba léegi seetlu ne lay jàngale abul aswadu duali nan lam min toppee alquran bi mooy tomb yi nan lañ ko defee nan lañ ko war a jàngee ba ibnu jatari bi da lay jàng ba rasmul kitaab ba ba ba ay nujumu tawaali mu ngi koy jàngal ak mastabax ak mufiid <coughs> ak libahaar ak yeneen téere mu def daf ne wa baadu cee daf lay woyal mu ne ko wa baadu ayyuhal ustaadu anta ala tahdibi dat tifli la taxafal wala taxbi waksuhu jamil al xatti wa bahjata hatta yura jamil al qalami fi kulli maktabi maa ngi lay jox bi ngir yàlla jàngal ko ni war a bindee ndax ëllëg même bu fi nekkul fii boo doomam gisee ah sama papa de ku rafetlu mbindi la mu ne lu gën a bon nag ñu jox la mbindiin ñu jox la taalibe au moins que jàngal ku ñu ko bindee mais nga koy jàngal ay maxaarij xuruf loolu baaxul ci taalibe taalibe dañ koy jàngal ni war a mbindee alquraan mu ngi sant sànq def ma woyal ci mbindiin Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anu ndax kooku mooy ci référence Thierno Mouhamed Samas la bi ma bi ma bi may ñëw dafa ne bis bi dañ ko def bisu yow ma sabti mu ne Sëriñ Tuubaa waxoon na summa nasihatu li ahlil baari xayru min al jihaadi kuffaari mu ne lii mooy jihaad li ngeen def ni moo ko ëppal solo ndax di jihaad bu mag ngeen bokk mu ne ci li mu gën a moom tamit ñu ne ñuy waa Tuubaa la ñuy jógee ci kontaan mu ne Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne faakat la dalla la dallaahi aqlaami mu ne aqlaam boobu boo ngeen di doxee def mu ne tamit katabtu yawma sabti katabtu yawma sabti inda kula ba baada jihaadi wa firaqil balawa mawti wa shakki wal ada wal bala anni nafaha allahu indal kula muy surtout jàngal na beneen mu ne yaa ayuha yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wastaxilu bil ilm bil ulum wal wa bu leen sàgg bu leen yóbbu xale yi ñuy jàng leneen fexe leen xale yi jàng xam-xam jàng ni ñuy bindee alquraan Ceerno wax na luy bari man xelam matuma luy xelu Ceerno matee cer man daal mënuma mënuma wax li Ceerno wax ndongo kii rek matuluma dara eh, kontaan nañu loolu Ceerno eh, daal mu ngi leen di gërëm mu ngi leen neen tamit bismillah Cheikh Mahmoudul Khadim ak sama papa Mahmoudul Moustapha yi sama xaritu papa la moom ak Ceerno moo di ñoo doon ànd sama papa taalibeem la. jaaraama donc gannaaw nañ kontaan bu baax a baax moom mu tamit mu ñëw fii. eh alhamdulilahi rabbil alamin eh, wadde seeɗa tan e pular ko délégation ceerno mouhammad samasa arnoɗo o lomtade kadi ceerno mouhammad samasa ene en timmani kono hannde en timmi wiyeede ɓeeɗo koɓe arɓe ɓe lomti ceerno mouhammad samasa ceerno wi min kewani ñantade kono ceerno wi ɓorno ɗe comci joɗɗi jahon o wi ɓorno ɗe comci joɗɗi jahon hannde ko yawma zinati hannde ko ñalawma cuɗaari sabu ko ñalawma alqur'ana mi meeɗa dañde hono oɗo ñalawma oɗo ñalawma jeeya koye ñalawma jam ɓurɗo welde so wonano tan tampere e teddude ko min e hoorama arata kono jeehemi mi janggina ko weltade oɗo ñalawma ceerno en welto konngol ceerno ko konngol matam fof waari ɓi ko ɗan ɗo ceerno souleymane ene mbiyata baba mouhammad samasa omon ɗo henne kanko woni gardiɗo délégation mata ko min woni lemsuɗo o tan ceerno noon ene weltono arɓe ɓe o wi arɓe ɓeɗo goni koye jihad ɓe goni koye jihad enen arɓe notaɓe ɓe kadi gonɗen koye jihad ɗum noon ceerno ene weltono arɓe ɓe fof e ñalawma mo waɗa onon kadi garɗon nofɗon yo allah yoɓa moƴƴere e min timman noon no ceerno timmiri ni eko haali ko ne heewi mbawa timminde wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamina hada axukum Abdourahim Thierno Mody Diallo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. takbir takbir takbir macha allah ñu ngi lay siyaar baax si Abdourahim si Abdourahim Diallo macha allah kàddu yi am na solo lool. نعمة ربك بمجنون